gisee tabarkàlla Sénégal bu ngeen ma gisee fi ma taxaw xam ne maa ngi fii ci diwaanu jàmm gën si kàmbaaw eh, taxaw ak ndaanaan loo xamante ni si goxam ràññee nañu ko fi mu dëkk ràññee nañu ko ndax bu ngeen gisee mobilisation bi nga xamante ni moo am fi ci jàmm gën si kàmbaaw nga xamante ni ñi fi nekk ñëpp ay ay nit yoo xamante ni lañ ay responsable lañ te kenn joxu leen dërëm ken fayu len deureum ñu bëgg may jeng mu yàgg it go xam bi nga xamanteni moy jamm gën ci cap Mbaaw yàgg fe ubi ay école xalé yi di jang ken du fay deureum ba ñoñu tay ay responsable lañ fañu ñu nekk yàgg fee jàppale ay doomu adama juma yi ak jàkka yi sa yu wéru koor jotee mu difa def ay ndimbal difa def lu nekk ci xeetu teraanga kooku mooy Mbaye Dieng Saala Waynde tay nak mu woté bis bu reuy tay nak mu wara and ak ki nga xamanteni si moy ndana lu magli tay ñu war ko fekk ci mitin bu mag fele ci Grande medine tay nak ñu and ak mom fi nga xamante ni moo di Diamaguène si Mbao di Boubacar Camara tey nag bu ngeen gisee mobilisation bi xam ne liggéey rek moo wóor nit ku nekk fa nga nekk war ngaa jàppale sa gox ba bu ëllëgee boo leen soxlaa foo ci nekk ñu fekk la fa bu ngeen gisee mbooloo mi nekk ci ginnaaw Mbaye Dieng xam ne kat gox gi mu nekk liggéey na fa ba tey ku mu woo nga wuy si ko Mbaye Dieng Sala bala ma laa jox micro damay laaj Assane tey naka la gisee bis bi. waa xaaral ñu ngi sant yàlla di ju Seydina Mouhamed di sant suñu waaru waajur di sant waa Tali Mame ñi nga xam ne ndeysaan danoo dooleel Mbaye Dieng kii daa jar a jàppale taalibi Serigne Touba ki ndeyam gërëm ki baayam gërëm te baayam lay jooy te noppeegunu ñu dëkk ci gox bi ne doon ay artiste dëkk tali Mame Diarra juddoo fii Mbaye Dieng ne ndeysaan lu mu amul rek ci moom la ndax da ko mérito barke Mouhamed aca mu ngi noonu Mbaye Dieng lu mu amul rek ci moom la may comme temps bi dañoo xooj may naka nga gisee mbooloo mi nekk sa ginnaaw ak tey nga woote ñëpp ñëw wuy si la euh, ban satisfaction tey am ci bis bi waa maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam di kontaan lool ndax woo xew na ñu wuy si la yombul man yaa luwee say chaise nga teg ko doo gis kenn waxuma laa nga gaare say kaar kon bu ma gaaree sama fukki kaar mbooloo mi ëpp ba ñuy dolli yeneen kaar kon sant yàlla waaye lépp rek ci Boubacar Camara kooku ànd ak moom sax doo jël ndaare ndax macha allah suñu borom da koo dimbali suñu borom da koo teral kon ku ànd ak moom sax suñu borom da lay teral tali maam jaara mënu leen a fay lu ma leen lebaloon rek fay nañ ma lu ko sama baat nag dafa dee mënu maa wax. yow jàmm gën si gàmbaaw ñoo la bëgg nga bëggoo politique askan bi ne la foog nga génn politique ay see ne la di nga politique euh, chef de quartier yi ñëpp ne la may yow la ñu wóolu koo àndal moom la ñuy àndal naka nga gisee kóolute googu sa gox am ci yaw xanaa rek ñu fas yéene àndandoo rek liggéey ma leen di xamal ni leen jël naa samay engagement yi wóor ci Boubacar Camara yéen waa jàmm gën si gàmbaaw yéen ñëpp damaa bëgg ngeen génn rek ñu jàppale Boubacar Camara sama baat dafa dee li ma bëgg a wax yëpp bëri na mais sama baat moo dee dama socc waaye acca gis ngeen ko yéen a ko gisandoo Boubacar Camara yow laay waxal ki nga xamante ni moo di Mbaye Dieng Saala Waynde liggéey na ci goxam liggéey goo xamante ni si tabarkàlla boo gisee fukki kaar ak juróom yi nga xamante ni moom la gaare tey àdduna gépp génn jàmm gën si kàmbaaw gépp génn mag ñi génn ndaw ñi génn nga xamante ni kat liggéey rek moo wóor nit ku nekk fa nga nekk fexee na waxtaan ak sa gox liggéey ci ñoom ba ba bu ëllëgee boo wootee ñëpp wuy si la kon Mbaye Dieng Saala ñu joxante rendez-vous fële ca Grand Médine fa seenee dalal ki nga xamante ni si moo di Boubacar Camara. waa loolu la ñuy def ndax Boubacar Camara moo laal doomu dëkk bi Boubacar Camara moo laal doomu jàmm gën si Kambaaw kon yow di nga xam ne tey jii ngay xam ne lépp dëgg la mobilisation baa ngi ñëw te bu ñu see nga xam ne fukki kaar yi ma la waxoon. amul benn bu ci manqué ëpp la ñuy wax waaye du manqué waaye lépp nag Camara yow jar nga ko. ayca mu ngi noonu nañ dem. sénégalais a ngi teew moo tax presse baa ngi def seen liggéey la presse écrite caméra film ñii bind ñii wax ñii way presse bi yëpp daje tey jii autour de Boubacar moo tax tey jii bu ngeen ñëwee ci meeting bu Nous lancé un drone drone qui di circuler di jël image nous loolu musul am au Sénégal Mon tax kon bii les camarades may leen camarade bu installé camarade Boubacar bu installé jàkka yi am nga chef de quartier yi am nga jeunes yi am nga mbootaay yi am nga ASC yi ndax nag damaa yàgg di liggéey ak ñoom nee nañ man maa leen ci lu moo tax dañ may fay ba mu neex te ci Boubacar Camara lañ ma koy fayee kon sant naa bu baax ndax kiñ ma koy fayee loolu dina ma neex lool di nuyu ñëpp staff Boubacar Camara yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu ñi ma àndal ndax président da nga am ay yaay faal da am ay baay faal tali maam jaara jàmm gën si kàmbaaw yaa ko moom. jeunesse bee ko tax a jóg Sénégal ko tax a jóg na ko ñëpp jàppale ñun de famille am ñu ngi ci ginnaawam xam nañu du fooy xaas réew mi xam nañu du caaxaanee réew mi liggéeykat la duñ ci bañ dara bëgg nga ko ba pale. ma toog ak euh, Aminta Pam kenn ci ñi nga xamante ni yàgg nañu ànd ak May saala Sala euh, Waynde euh, Aminta lan nga ñu mën a wax tey ci bis xanaa kontaan ci bés bi rek. bu fekkee mobilisation rek lañ doon wut am nañ ko tey ba suñu xol sedd am lu kawe suñu njot képp taxaw tari maam jaara tey xam nga ni la fa wàññeekuwaat te bëggoon a ñëw bëri na ñun li ñuy jooy mooy ñàkk ay kaar tey mais kontaan nañ kontaan nañ ndax ku nekk xam na ne bu dee may dooleem rek nga bëggoon a gis tey gis nga ko te dooleem des na talimaam jaara loolu rek moo ñu metti li dooleem des talimaam jaara yow it yaay ngay géwél ci May Dieng lan nga ñu mën a wax xanaa bëgg mbay May Dieng sopp may jàng na am di ko am mbooloo du ko di ko am yëg ci doomu aadama mbooloo man bàyyi ñu des foofu ñëwunu moo ëpp mbooloo mi ñëw may jàng bu ko ñëpp teeloon yëg kon fii yëpp moo koy feesal dafa am mbooloo yëg doomu aadama moom day dem kenn du ko téye dafa am ñaanu waajur moom day dem kenn du ko téye. acca Mounass Dabo yow it eh, tabaarkaala ngay kenn ci may jàng lan nga ñu mën a wax yow it ci bis bi. ah xanaa bu sedd rek parce que li leen doon ñaan yàlla. ndax dañoo yàgg di ànd ak may sonn ba tey jii président Boubacar ñëw am nañ yaakaar bu baax ci moom. aujourd'hui bu jëlee bés bii tuddee ko waa UNAS def naa ne loolu ndam la ci Sénégal ndax aujourd'hui Boubacar Boubacar lii nga def lii dafa rëy di remercier. L'organisateur de cette manifestation Léna Léna bés bi rëy Léna lii lañ doon xaar Léna nga organiser bés bi rëy dama Edouard Edouard foo il est là il est là le grand monsieur nommé Boubacar Kaba. sénégalais a ngi teew moo tax presse baa ngi def seen liggéey la presse écrite caméra film ñiy bind ñiy wax ñiy woy. presse bi yëpp daje tey jii autour de Boubacar moo tax tey jii bu ngeen ñëwee ci meeting bu toll ñu lancé un drone bi di circuler di jël image yëpp loolu musul am au Sénégal moo tax kon bii le camarade may leen camarade mu installé camarade Boubacar mu installé.